li ma leen ko waxee woon ci euh, bopp xibaar yi xam ngeen ne nguur gi dafa jël ndogal ngir wàññi euh, dund gi ndogal yooyee nag dinañ ko tàmbalee appliqué ni ki euh, ëllëg ci altine ci yem ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin ki nga xam ne nag moo di joriñ bi ñu dénk wàllu industrie ak njënd ak njaay nekkoon ganu xibaaru juróom-ñaari waxtu yu démb yi dellu si wat na ci mesure yi nga xam ne état bi jël na ko ngir fexe ba ñu tëral lii di tarif yu yees yi koy teewlu Euh, li li euh, ñu euh, bëgg a wax d'abord mooy vraiment gërëm tous les partenaires ndax depuis un mois et demi ñu ngi waxtaan ci loolu ñu ngi def consultation commerçant yi industriels yi importateurs yu ceeb huile vraiment premier ministre Ousmane Sonko teel cee jóg également def nañ ay réunions yu bëri bëri avec tous les ministères dañu amoon daal approche wax dëgg yàlla déglu ñëpp wax leen aussi que bi ñuy def campagne électorale dañu ne woon ne euh, njëg yi nga xam ne moo nekk ci euh, biir réew mi nga xam ne mooy les denrées de première nécessité muy ceeb huile nañ ko wàññi. pourquoi parce que soo xoolee réew mi dafa am un taux de pauvreté boo xam ne dans les banlieues en milieu rural attanatuñu le coût de la vie. ceeb bi dafa cher. huile bi dafa cher. sucre dafa cher. donc loolu fekkee dafa nag gouvernement dafa yërëm doomu aadama dafa yërëm nit ñi su ñëwee il faut que ñu seet naka la ñuy def ba alléger au moins. le panier de la ménagère. Mhm. loolu moo waral euh, donc bi ñuy defee loolu waxtaan ci ma recevoir euh, toutes les associations la la premier ministre rassemblé tous les partenaires ministre de finance euh, ministre de l' agriculture tous les ministères laa ñëw toog ñu wax finalement lan la ñu war a def. ci lañu nag seet que vraiment lii il faut ñu def ko à la fin nag la ñu jël woo leen à fële à Dakar. pour waxtaan ak ñoom maintenant pour mën a tëral prix yooyu. moo waral finalement ñu euh, amoon nañu consensus ci lu bëree bëri mais xam nga dafa nekk balance euh, moi je suis le ministre de l' industrie donc dama war a fexe ba prix yi industriels yi également du leen gaañ parce que su fekkee ne dañoo habiller Jean pour euh, déshabiller Paul wala habiller Paul pour déshabiller loolu baaxul donc dama war a def balance boo xam ne dama bëgg a protéger le consommateur sénégalais le peuple sénégalais ba sonn bi mais en même temps war ñu aussi fexe ba ñi nga xam ne ñooy industriels yi nga produire l'huile produire euh, tous les tous ces produits de première nécessité il faut aussi ñu am euh, une certaine rentabilité loolu nag moo taxoon exercice bi lu métti la woon mais Dieu merci mais mën nañu déggoo parce que ah. li li importance mooy wax leen d'abord que dafa nekk loo xam dañu ay mesures yoo dañu koy jël fii ak ñetti weer on va faire le bilan. parce que dafa compliqué xam nga euh, soo déggee ñun ñuy wax souveraineté alimentaire. Mhm. dañu gis ne loolu mooy solution bi. Mhm. li nga xam ne en fait doo ko produire mënoo ko vraiment wàññi wala nga yokk ko tu ne peux pas faire ça. Mhm. loolu moo war on a décidé que dans le court terme. nañu seet yan levier la ñuy euh, agir pour njëg yi wàññi bay bay mais dans le moyen et long terme solution bi mooy Sénégal produire li muy consommer euh, xam nga euh, kii mburu mburu mi sama mbokku njaayeen yi mm. ak tukkuleer yi effectivement ñoo ci ñooñu ci gënoon sonnal xam nga il fallait que ñu seet lan mooy baisse bu significative bi soo xoolee sur mburu dafa nekk benn denrée boo xam ne en réalité dañ koy consommer le matin à midi le soir ndax dafa nekk euh, loo xam ne euh, prépare dafa yomb soo demee ci tànga yi mburu nga fay fekk le petit déj mburu nga fay fekk à midi les sandwichs même dans dans euh, quartier yu bari foo dem rek en fait c'est un aliment de de base en réalité comme c'est comme le riz en réalité sauf que soxla wool togg ko lool moo waral ñu waxtaan ak boulanger ak meunier yi ñoo ñu nekkoon le plus difficile ndax dañu dem ba war ko laal le prix du blé yokku la tonne de kii mu ngi doon jar deux cent quatre-vingt-dix temps yi rek y a juste un mois léegi mu ngi trois cent dix euros mu ngi kon d'ailleurs di yéeg dem vers trois cent vingt euros or blé boobu en réalité ñun dañ ko maîtriser wul mhm. parce que un produit boo xam day jóge ci loolu moo waral amoon on a beaucoup de difficultés pour mhm. trouver consensus entre borom euh, meunier yi ak boulanger yi finalement nag dañu waxtaan ak association yëpp waxtaan ak meunier yi pour ne leen finalement vingt cinq francs yooyu euh, euh, euh, dafa nekk loo ku nekk da ci war a dugal loo xam ñun état on va subventionner meunier yi ñu wax leen ñu jéem a wàññi li ñu mën a wàññi boulanger ñu wax leen ko avec toujours la même approche mooy bëgguñu ci lor ni les boulangers ni les meuniers ndax meuniers yi fekkee ne les les grands moulins tous ces entrepreneurs qui font venir le blé dafa am ay employés dañu am ay charges or euh, suñu vision de notre gouvernement mooy une vision économique on a une vision économique boo xam ne acteurs yi muy le secteur primaire agriculture le secondaire et le tertiaire alors dañ ko war fexe ba ñu sauvegarder ko man nag yore secondaire ak tertiaire loolu moo waral muy les commerçants ak tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur man leen yéen il faut ngeen def un effort léegi euh, industriel def un effort et nous en tant que état ñu def un effort loolu moo tax on était d' à francs la semaine passée dégg euh, le secrétaire général du gouvernement annoncé ko mais on a vu que francs dafa am benn problème mooy la pièce demande à chacun de faire des, des efforts et finalement ñu indi ko à voilà dañu jël ay mesures yu bëri la première mesure mooy euh, ce qu'on appelle la communication mm. vous allez voir nañu kon ne communiquer pour won nit ñi les prix euh, ñëwaat yéen waxtaan ak yéen y aura beaucoup de communication sur ça pour que nit ñi respecte les prix aussi bien à Dakar qu'à Kédougou mm. ça la première étape beneen bi nga xam dañ ko bëgg def aussi mooy euh, dañu am ce qu'on appelle les commissions régionales de consommation ñooñu aussi nañu réunir pour seet transport bi nga xam ne da cee nekk euh, dañu war nekk à Kaolack xam nga dafa am un prix sur le transport. Mm-hmm. ñu d' ci loolu. def loolu mooy li nga xam moom la ñu war a def tey war ko def suba war ko def temps yi ba finalement loolu moo tax ma ne les prix. entre en vigueur à partir de lundi. Mm-hmm. Lundi prochain, Inch'Allah, le, le 24, il est entré en, en vigueur. Mm-hmm. Troisième élément de contrôle, moi, on aura un numéro vert. Nous savons que nous avons un quartier. que le prix bi nga xam moom la ñu fixé muy le cent cinquante boulange di ko jaayee à cent soixante francs mën nga alerter wax ñu ko. troisièmement li ngeen xam aussi mooy le ministère de du commerce et de l'industrie dafa am mille volontaires. yoo xam ne c'était les volontaires donc euh, du contrôle des prix. ils ont des systèmes euh, de de géolocalisation nga xam ne fépp fu ñu gis ne prix ceeb dafa yokk wala prix huile wala dañ ko def de façon illégale il peuvent aussi le signaler. mu nekkoon jëriñ bi ñu dénk wàllu industrie ak jënd ak njaay docteur Serigne Gueye Diop euh, bi dellu waat euh, ci ndogal yi nga xam ni nguur gi euh, jël na ko ngir wàññi li nga xam ni moom moo di dund gi. dañuy dem euh, ci euh, Ngaye Mékhé foofale nag ab centre de formation au métier du cuir et de la peau dinañ ko daloo ci weeru décembre euh, bii di ñëw ki ko xam ne nag moo di directrice générale de la formation professionnelle moom mi fa amaloon ab mission de supervision ñu fàttali rek nag ni bërëb boobu dinañ ci dugal lu toll ci juróom-ñaari téeméeri million ci suñu koppar dañ ci ànd ak Mamadou Sakine. ci barab bi nekk fii ci Ngaye Mékhé la ñuy tàggat gone yi war a jàngal lii di artisanat liggéey bi xaw na sori bu yembee dina dimbali bu baax ñii di uude yi ak ñoom seen. formation dafa nekk loo xam si dafa nekk lu transversal ci chaine de valeur bi nga xam ni seen chaîne bi approche bi filière bi ci ci maillon yëpp nag da koy traversé. parce que ku ci nekk soxla nga formation ci niveau boo nekk muy defarkatu dàll ba di jaaykatu dàll ba di defarkatu der bi donc loolu yëpp dafa nekk loo xam si centre bi day ñëw pour régler cette question la et d'une manière professionnelle. ku wax ngay meexe wax daalu ngay ak yeneen moo tax commune bi kontaan lool ci tabax bi le centre ci dëkk bi. li fi gën a doy nga xam ni moo yéeme te nekk lu baax ci ni nu bëgg a moomee suñu bopp bëgg di consommer li ñuy bay ak li ñuy defar ak di ko defar itam mooy que centre bi dafa nekk modèle. modèle bu nekk modèle bu innovant bu bu nekk ci yeesal ndax euh, di nga fi nekk jàng. mais di liggéey donc dafa nekk euh, entreprise euh, école entreprise di war di génnee koom di joxe ay liggéey di ubbil xale yi aussi ay possibilités ñu dem créer. nguuru Sénégal ak banque africaine de développement ñoo joxente loxo ngir taxawal bile projet. état bi lëkkaloo ak banque africaine de développement pour samp fii centre bi ngir former acteurs yi ak naw ñi ndax activité bi. dafa dafa nekk activité boo xam ne mun na indi koom bu bëri si si si réew mi donc loolu moo tax ñu ñu euh, initier projet bi donc euh, pour un montant de plus de 700 millions de francs CFA TTC. ñuy sant état aussi du Sénégal bi nga xam mu ngi jàppale ministère de la formation bu baax a baax pour mu matal euh, construction centre bi nga xamante ni localité bi moo ko laaj exigence la pour ñu jox xale yi ay jumtuwaay ñu jox leen xarañteef bu nga xamante ne mun nañu liggéey liggéey bi mais fii ci ngaay xam ñu ni. poser cuir nécessité la pour ñu yokk xarañte fu xale yi. artisanat am na solo bu baax ci koomu réew mi ak centre bu bees bi secteuru artisanat dina gën jëm kanam. dañuy dem ca diwaanu Matam ki nga xam ne nag moo di chef d'état-major général des armées amal fa ab tournée général euh, Mbaye Cissé ba fa demee nag waxtaan ak na ñi nga xam ni mooy jàmbaaram yi waaye itam ñu saytu dispositif militaire bi nga xam ni teg nañ ko fa dañ ciy ànd ak kii di Ibrahima Pabi Diédhiou. camp bu marine bu Matam lu daanaka ñaari at ginnaaw buñ ko sampe si diwaan bi chef d'état-major général des armées ñoo ñëw def nemmeeku bu njëkk. ginnaaw saytu jumtukaay yi ñu am général Mbaye Cissé sëkk na waxtaan bu yaatu ak soldaar yi nag si diwaan boobu boobulee man li ma fekk fi euh, kontaan naa si gis naa fi ay unité aussi bien à Podor que à yoo xam ne ay unité engagé lañ ñu ngi def liggéey bu mucc ayib euh, te li ma si gën a neex liggéey boobu dañ koy def ànd si li nga xam ne ci wàllu frontière la ak suñu mbokk république islamique de Mauritanie maanaam ay année ngi nii ñun wax ñoom dañu lëkkaloo ci wàllu dex gi ci wàllu suuf bi ak ba ci biir géej gi dañu lëkkaloo suñu ñaari armée di liggéey pour aar li nga xam ne ñoo ko bokk. dem na tamit ci camp militaire bi nga xamante ne mu ngi ci Wuroso gi foofu tamit amal na waxtaan ak commandement bi. dispositif bi ñu am fii. Euh, moo xam ne soldaar yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko téye muy ay patrouille frontalière ak li nga xam ne ñu ngi koy def si dex bi ak euh, suñu suñu commando marin yi euh, dal na suñu xel xanaa di wax waa maatam rek ne que armée armée bi nekk fii seen wet ñoom la fi nekkal ma ciy profité di encore di gërëm suma homologue le général de division Chaban chef d'état-major Mauritanie ci xarañam ak engagement am liggéey suñu côté at yi yëpp ñu koy def ci anam bu rafet ah terre air mer ak ah, ci ak ah, fleuve bi. Sénégal mu ngi waaj nag exploité pétrole ak gaz ngir ñu mën a aar bu baax a baax barab yooyu mu ngi waxaat taxawaayam bi. ñun tooguñu ba pétrole bi génn ñuy soog xool ni ñuy def balaa pétrole bi di génn ak gaz bi ah jëloon nañ suñu matuwaay yu yu mat sëkk boo gisee suñu marine lu mu jëlee lu mu jëlee doole at yi ñu génn. ñun ax suñuy bateau Mauritanie ak bateau Sénégal ñoom ñooy taxaw nii si biir géej gi lëkkaloo. ginaaw bu mu defee ay waxtu ci diwaan bu Matam Sam Nga bi nag jël na avion militaire bi fële ci aéroport bu Ourossogui aéroport boobu ginnaaw bu ñu tàmbalee liggéey bi ñaari at ba léegi daanaka jeexagul. fexe ba moytandiku lépp loo xam ni conflit la waaye itam kaaraange euh, menace ci wàllub euh, kaaraange ci Afrique sowu jant loole moo tax a jóg cabinet Peace Consult moom mi proposé lii di xarañteem état yi initiative bi nag euh, li ko tax a jóg moom mooy fexe ba identifier yenn zone d'intervention yi dañ ci ànd ak Fanta yi Afrique bu dal ànd ak kaaraange cabinet bi ñu naan Peace Consult bëgg cee gunge njiit yi ngir ñu mën a saafara mbébét yu aajowoo ci lii gàllankoor koomu Afrique te ñàkk kaaraange sabab ko. ñun bu ñu jógee di wax ci affaire sécurité sécurité humaine la ñuy wax moom mooy li nga xamante nii moo soxla soxal nit ki. du affaire sécurité état mais sécurité bi soxal nit ki mooy maanaam ci wérgu yaramam mooy maanaam ndax nit ñi am nañu xëy. mooy maanaam xale yi est-ce que mën nañ leen a dugal ci école yi ñuy jàng mooy maanaam est-ce que ñun euh, am nañu liberté yi nga xamante ni moom la ñu war a am ba li nga xamante ni nii moom la ñu xam ñu mën koo wax. kaaraangeel dendo Afrique bokk na ci ponk yi cabinet bii di Peace Consult fas yéene tënku tegit ay jumtuwaay yi état yi mën a sukkandiku. dañoo gis euh, situation bi nga xamante ni nii dëkku Afrique yi ci la ñu nekk. surtout Afrique de l'Ouest mais aussi situation bi nga xamante ni nii bu jaax bu ñu jaaxal la bi nga xamante ni ci la Sénégal nekk nga xam ne dafa am ay problèmes au niveau des frontières mais aussi am ay problèmes ci biir réew mi il faut que ñu trouver ay mécanismes yoo nga xamante ni nii dinañu permettre ñu fexe ba am yoon wu ñu teg société bi te loolu nag dañ ko bëgg a def àndandoo ci ak état ànd partenaires yi and ak communauté yi ànd ak nga xamante ni nii mooy sëriñ si ak ñëpp pour defar ko Abdou Lahad Gueye njiitu Peace Consult am xel mu dal ci ni Afrique mën na naat jotaat ci li nga xam ne moo di am amam ci bépp fànn. dañuy dem ca Tambacounda ngir wane la leen ak marché euh, corona tur boobu nag euh, li ko indi mooy ci période Covid bi autorité yi nag dafa am ñu fa jële woon ñoo xam ne nag ay occupants illégaux ñu nekkoon ca marché euh, centrale bu Tambacounda ngir moytandiku liñ doon woowee cas communautaire ñoom nag ci la ñu jóge foofu dem ci benn bërëb bu nekk ci diggante quartier Gorel Amat ak Liberté ñu tuddee ko